Dakar, notre plateforme d'information. Euh, je que maa ngi ko doon annoncé léegi donc comme TikTok la ñuy itam am na koo xam ne ci euh, TikTok bi la nekk mu ngi koy nuyu euh, boss. salaamaaleykum waaw ah, maa ngi ci jàmm. Adamo boss de Negri yow moom kenn du wax TikTok te waxu waaw ah, loolu yàlla def na ko moom maa ngi ziar maire bi fi toog noonu soxna Aïssat di ziar ñooñu ci fi toog ñëpp ci plateau bi ak ñi fi nekk di leen ah, bëggee. waaw sama doom ji Adamo ziar naa la. ñuy kontaan ci yow di la dégg ci Feeling Dakar abonné nga am ci TikTok. ah man 3000 ñoom ak 1 million. Ah, waaw 3000 personnes. allo. waaw allo Adamo waaw abonné waaw waaw. d'accord d'accord. alors lan nga ñu mën a wax tey ci euh, TikTok beeg ñi nga xamante ne bii ñoo génn àdduna. waaye ñi génn àdduna xam nga dee moom yàlla moo ko yore. alors ah, de dëgg la. yàlla mooy xool ko neex mu rey ko ak fa ko soobee ak nu mu ko bëggee ku matal dem. fii amul kenn ku fi wax naan dama fi sacré diw wala jinne wala rabala rey yàlla mooy nit soo matalee rek da ngay dem waaw soo matalee rek da ngay dem yàlla moo koy sax di feebarloo nit ñi comme que Sénégal daa ñaaw njottu moo tax ñu bari mu leen di feebarloo di ko jaare fenn pour yóbbu leen suñu waxee ñu ne ah feebaroon na wala boog tëdd na tuuti mais bu ko neexoon dalay rey te du la feebarloo boo matalee rek dem. dëgg la. kon kon d' accord ñuy wax ne col gi donc te dafa am sacrifice parce que yaa ngi lay loolu. non man d' accord ma de man sama li ma nekk sama àdduna lépp yàlla la maanaam yàlla mooy rey yàlla mooy rey yàlla moom mooy dekkal képp ku ne la mënu mooy rey di dekkal rek waxul dëgg. yàlla nee na man rek maa mën a rey xanaa gëmatu leen alxuraan yàlla nee na man kese alxuraan laa lay wadde man rek maa mën a rey man maay kii dekkal. xanaa alxuraanu yàlla ji nag kenn du ko fi bàyyi di dem ci ay sëriñ dañ waxante dëgg yàlla wax loolu ci alxuraan. rek maa mën a rey te man maay dekkil. ma dégg nga sëriñ yi si sëriñ yi si wax ne ne dafa am ay sacrifice ci TikTok bi. sacrifice yi de xaw ma fu koy def kon amoon na gisuma ko man maa ngi ci tiktok bi de te deewaguma. te kenn sacrifié gu la. ah dama yooyu ndax yomb ngaa sacrifié. ku ko bëgg a sacrifié daal naa ne nga faatu. ku ma ah. euh, est-ce que xamante woon nga ak Codé Fall euh, mi nekk mi des na barki démb wala Aïda Ndiaye. daan naa ko gis mais ba mu ba mu deewee dama dama dama dama dama daan naa ko gis nii rek ñu ne teewul mais man ku génn àdduna Sénégal luy Sénégal di rëy rëy lépp xam naa ne Sénégal moom askan bi ñëpp may seetaan ñëpp may déglu dama koy defal vidéo jàngal ko ñaanal ko ñëpp laa ko defal daawuñu wax xaw ma ko. mais man lu rafet rek laay def ku ma gis mu génn àdduna defal naa la vidéo ñëpp gars yi xam nañ loolu. ndeysaan ndeysaan. alors est-ce que da ngay joxe waat ay conseils par rapport ak parce que tiktokers yu bëri dañoo ragal ñu bëri instant bi nii tëj nañ seen i compte ñenn ñi bëgg a daw génn li ma leen wax naan bu nu ragal dara maanaam nag bu fekkente ni moom da ngay dugg ci mbir. Hmm. te ñeme woo ko wala fekkul nga pare nga bàyyi ko moo gën. Hmm. waa kay d'accord justement Adamo d'accord naa ci. Euh. Adamo waaw ah. mais nag yàlla rek. moom mooy kii rey. Ah. moom mooy dekkil ah. amul keneen ku ne la mën naa rey diw wala moom mooy dekkil man ku dee tey jii bu ma dee woon. Mm-hmm. dama naan dama naan man yàlla moo ma rey mais pas sëriñ ma def nangam pour ma dee déedéet bul gëm loolu dil gëm yàlla. yàlla moom moo nekk alxuraan man rek maa a man maa mën a dekkil man waxu yàlla rek laa gëm te sama yónni ci sëriñ. Adamo bala maa ñëw ci deuxième point bi sama yaay Aïssatou Diop dafa am question bu mu la bëgg a posé. Adamo waa ma ne gis nga yaa ngi koy wax léegi nga ne képp ku bëgg a dugg ci mbir te pare bu ca dugg ndax Adamo yow xam nga waa may ma ma ne. ok dafa ma ne. waaw demande boobu xam nga dama. waaw may ma tuuti ma eggale da nga wax ba ñu déglu la. ok ma ne. mbir boo cay dugg na uh-huh. fekk nga pare. Uh-huh. mbir boo cay dugg na fekk nga pare bu baax yow xam nga ne Adamo kenn kenn bàyyiwu la noonu juruñ la noonu rek sànni la parce que yow gis nga façon texe bu nekk ñu ñu jéemal la ko te sàttu sottiwul. Uh-huh. du xam nga li ma lay wax. waaw mais man may ma ma eggali man dama bëgg benn benn man d'accord ma pour ñu naan dañ leen sacrifier mais bët bu aay làmmiñ bu aay am na nit loo cay dugg na fexe bu ca duggee neen mm-hmm. loolu lay wax waaye man d'accord ma dañ leen sacrifier mais fépp foo mënta dugg bët bu aay làmmiñ bu aay yow mii tey buñ la mën a loon dara sàkkar nañ la pexe bu yàgg hmm. parce que façon nit bu nekk jéemal na la dara te sottiwul moo tax nit booy dugg ca dara da ngay pare man lii mooy sama wax ci TikTok bi. d'accord alors euh, ok li ma bëggoon a tontu ci maire bi mooy. waaw. man Serigne Mansour borom daara ji moo ma ñaanal man du takk gàllaaj du ma naan sama yaay bi ma jur xam na ko bu ma joxee gàllaaj wala garab du ma ko sangoo du ma ko laal man yooyu du ko laal man yàlla laa gëm yaa ngi dégg. Mhm. kilifa diine yi aw ma kenn koo xam ne ni gëm naa la. wala saafaraat yooyu gaw ma ko mais dafa am nit ñoo xamante si nii coow da leen a jigul loolu ci ñoom la nekk mais man boo xëyee di ma coow ci laay gën a mën a taxawee bu ma xëyee lenn rek moom mën a rey may mooy ma toog déggatul aadama maanaam man kenn du ma dégg ci journée bi lu garaaw wala ci dara loolu mën na mën na maa rey mais man nitu coow laa loolu laa bëgg ñu may wax aadama nangam moo def lii tant que loolu mi ngi am damay gudd fan mais loolu bu amatul rek mën naa gàtt fan. mooy sa gàllaaj. d' accord alors Adama ah. beneen côté bi may bëgg a waxee mooy lu ñu njëkk waxtaane ça veut dire euh, Wally Seck li mu génnee ak Sidi Diop moom itam li mu génne euh, dèjà Adama nan la jàngate euh, toppante bi. Sidi dafa war a xam ne Wally Seck amul concurrence xam nga nit booy concurrence da ngay concurrence ante koo xamante si nii ah yéen yéen a tolloo doole amul benn artiste buy nekk Sénégal ci booy génération bi ah. nekk moroomu Wally Seck Wally Seck de eh, Wally Seck amul moroom xam nga la mooy problème bi da ngay xool carrière Wally Seck xool fi mu jaar saal yu mag yi mu tëgg fi mu ci Europe li mu financé si musique nga xool carrière Sidi Diop xam ne yemuñu Sidi fan la teg ban saal bu mag la Sidi Diop ma sa tëgg Europe tamit il faut xam ne boo jëlee Sidi Diop di ko tëkkale ak Wally Seck yabaate la loolu yabaate mosu koo weesu. Sidi Diop bu njëkk ñëpp ko bëggoon man es bi dama koo yërëm bu njëkk ñëpp ko bëggoon ba koy Wally Seck di taf ci xolam naan di ko présenté Sénégal yi ne noonu ko jàppale xale la comme démb ci man moo taxoon ko mu dem ba tey mujjee fii dama koo yërëm ñu koy concurrence sunte ak Wally Seck muy way di gaaru waale ay xol yaa ngi ci frigo ay jaar lu mu mën a way daal na ko way mais jaaga moom boo ko tuddati ndax bu dee wax ceeb ceebu jaga la ni wax hmm. mais pas jaaga waaw damay wax lu leer boo tuddatee jaaga wala mu tudd membre de famille bu Sidi Diop lu mu gis rek xamal ne Adamo la ndax man loolu affaire Wally Seck moom du ci may kenn dara pour mu leer daal pour mu clair pour nga dégg ko muy Wally sekk amul kan lay concurrence ci Sénégalais yi parce que ñu tolloo doole ñoom ñooy concurrence Wally du seen morom sa waay xoolal Wally carrière am nga xool carrière am xool carrière seeni Diop nga xool Wally Seck li mu finance ci musique ak fi mu dem ci àdduna bi nga xool carrière Sidi Diop waay c'est pas la même yenn yi yabaate la noonu la demee. Euh, ah. euh, lan ngay wax ci Wally Seck ak ñi nga xamante ne bii mooy artistes yi mu àndandaloon te ku ci ne mu may la terrain juste après euh, compilation bi ci stade bi. loolu jotu ba ci woon a def vidéo ndax dama dégg bu jay laa rek Wally li may wax ci loolu mooy artistes yi Wally di àndal ci son bi. Hmm. Wally ku mu setal dara. yaa ngi dégg bu paree du la bàyyi ci noonu xam nga lu tax parce que dafa gore noonu la mel boo ko nekkalee gi mu nekkal la ci naaj bi. Isa Marine bi barke alxuraanu karim baax gi mu baax mënoo mënoo comprendre sax déggu li ma la wax ay milliards mën na koo jël yëkkati ko jox ko nit toog ko yaayam jaaga mii seeni jóg di wax nii jaaga suba ngoon ah te lu muy xëy mooy dem ci hôpital yi yaa ngi dégg hôpital yi liste la fa am pour gars yi di bind ñi feebar ñan lan war a jàppale kaso yi ci loolu lañ lay dox social lay dox di dimbali nit ñi suba ak ngoon suba ak ngoon da cee da cee màgg da nga ko cee yar comprendre nga. da mhm. beneen affaire la il est extraordinaire Wally Seck amul morom loolu yàgg na koo def baaxam baaxam moom la ñuy defal nit ñi teraanga yi loolu c'est pas la première fois xam naa yow sax xamu dëgg la dëgg la loolu c'est vrai euh, alors Adama kon ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ci intervention bi suñu xol sedd na. maa ngi nuyu ñëpp di ziar merci beaucoup. jaajëf. del déglu del xool.